سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ردنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم إنا نستغفرك استغفار الأنبياء والمرسلين ونتوب إليك توبة الملائكة المقربين وهب لنا إنابة المخبتين وأوبة الصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بقي ci bés bu sell bi ci béréb bu sell bi ci waxtu bu sell bi ci weer bu sell bi dañuy tàll suñuy loxo jiital suñuy bàkkaar ak suñuy njuumte ak suñuy tële teg ko ci kanamu yàlla jéggalu ko mi nga xamante ne ci loxoom la nekk di wut itam woo ca yërmaandeem ndax ku mu yërëm nga texe bokk yi ñu ngi nekk ci weer bu sell mu tombee ñu doon ñu nekk ci anam boo xamante ne anam bu metti la waaye nit dafa aajowoo luñ ko rusee ndax doomi aadama léppam njuumte la kon soxla na luñ koy ruusee ndax bu dul loolu rek mbugalu yàlla mën na wàcc ca moom Seydina Yunus yonente yàlla law la lay dal nit dal na ko te mooy njunte yàlla teg ko natt bu metti waaye natt booba mu méttee mu tàllal loxoom yàlla nee na ma ñëw rusee ko ay jëfam fa lawlaa annahu kaana min la labisa fi batnihi ila yawmi yubaasu yàlla nee na bu dul woon ay jëfam yu baax ma rusee ko ko nee na ci mbugal boobu noonu laa koy saxal fii ci àdduna ba àdduna di tukki kon mu mel ni am na lu yàlla mën a rusee jaamam xadiisul xaar yonente bi tudd na ko am na lu leen yàlla rusee woon weeru koor bi nag doon occasion bu rëy boo xamante ne ñun doomu aadama yi mën nañ ci profitoo bi am lu ñu yàlla rusee teggil ñu natt bi metti yi boo demee ci abdullahi ibnu amra radiyallahu anhuma qaala qaala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam abdullahi nit ku ragaloon yàlla la waaye itam ku soppoon yonent bi la waaye ku doon gëstu diineen mais bokkoon na boo doon tudd saxaaba yi bokkoon na ca boroom borom xam-xam yëpp ñu yenente bi cité ne fexe leen ngeen di jàngee ci moom ndax moom la yonente bi waxoon ne lépp loo dégg may wax rek jox naa la ndigal nga bind ko moo tax saxaaba yi xadis bu leen réeroon ci wàllu yonente bi dañ doon wax ne dem leen ci abdullah ibnu amr ndax mo nekkon ki yonente bi waxon ne de bind samay kàddu abdullah ibn amr bokku na ci lamu mu ci yonente bi nee na wal qur'an yashfaani lil abd yawm al qiyamah keroog bés penc yàlla ku bëri yermane la waye itam ku tar mbugal la نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأي وأن عذابي هو العذاب الأليم لنا سما يرمى مجيد وينك أمنا وي ويبغل كم يرمى مجيد نك في تكاو أدنى يلا جيتال إندي نجي waye mune nak yowmal qiyamati fofu la mbugalam di gëna feñe bu fekkee am na lu mën a fay merag yàlla yowmal qiyaamati yelloo na mu fay ko fii ci àdduna yonente bi nee na ñaar a ngi nii bàyyi leen ci xel yéen sama xel mooy koor te mooy weeru koor mooy alquran mooy téere bii bu màgg bii nga xamante ne boo ko bëggoon tey balaa ngoon nga jot ci bokkul ci téere yu jafe yi walaqad yasarna alqurana li dikr am na téere boo xam mën nga ko ut fukki at door ko am gis nañ gis nañ boroom xam-xam boo xamante ne jot na ci téere mu ne depuis fanweeri at mu ngi ut téere boobu te pourtant am na ay bunt am na ay connaissance pour mën a am téere waaye téere ba jafe ci loxoom toog diir door koo am wala mu di koy jàmbat ne téere bi laa soxla te mënuma ko am waaye alquran ku ci dogu tey jii nii balaa ñaari waxtu nga am ko yàlla ne na maa ko yombalee noonu yonent bi nag ne ñaar yooyu yàlla def leen koy rusee ku bugg yàlla rus ko fexeel wéeru koor nga bàyyi ci xel ku bugg yàlla rus ko fexeel alquran bii nga di koy jàng nee na yàlla def koy rusee nit yowmal qiyaama kon bu dee yàlla dina ko rusee nit yowmal qiyaamati yelloo na fii ci yàlla dafay wax naan wala yaqulu siyaamu koor dafay wax naan ay rob inni manaatuhu taam والشهوات بالنهار فشفعني فيه nee na koor gi ñuy wóor nii nga xamante ne la ca des bareetul kon buñ ci sàgganoon nañ gën a farlu nee na koor dafay taxaw ci kanamu yàlla ne yow yàlla kii de maa ko tere woon bànneexam xëy ndékki añ loolu maa ko ko tere soxnaam yooyu yëpp maa ko ko tere woon maa ko tere woon bànneexam kon yow yàlla maa ngi lay ñaan nga rusee ma ko tey jii yàlla na ko dama rusee naa la ko kon weeru koor occasion la pour wàccee ridoy kersa suñu diggante ak suñu borom bu am lu ñu yàlla rusee yàlla yàlla jàppale nit dafa aajowoo daje kilifa tey jii ci réew néew na benn benn ngay compter koo xamante ne buggul a dajeeg président bi nekk ci réew mi wala buur ba nekk ci réewam boo compter ñi buggul a dajeeg moom benn benn la wala doo ko fa fekk kon nit bugg na dajeeg kilifam kon nit bugg na dajeeg yàlla ndax dafa wax ci suratul mutaffifin kalla innahum an rabbihim yawma idin mu ne la mahjub ne na gis nga ñoon dama leen siba sib bi nga xamante ne dama leen iir ba maag ñoom du ñu gisee laa yukallimuhumullahu wala yazaki yàlla nee na du ma wax ak ñoom du ma lijjante seen mbir parce que dama leen sib kon am na ñu dul gisee ak yàlla kon gisee yàlla ci texe la bokk nit ku nekk nag bu mun a dajeeg yàlla gisee ak moom weeru bii ñu nekk occasion bu rëy la pour nit mën a am audience mën a gisee boromam jalla jalaaluhu wa azza tabaar abu hurayrata di nettali ci xadis abu hurayra nekkoon góor goo xamante ne leneen yitteelu ko du marché du tool du lenn li ko yitteeloon rek mooy yonent bi na wax mu gaaw koo mokkal tee ba yonent bi sala salaam ñaanaloon ko ca kon lu mu la wax ci yonent bi rek téye ko abu hura nee na jëlee naa ko ci làmmiñam yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mu ne man yonent bi déggee naa ko ci yàlla kon li waxu yàlla la ko nee na yàlla ci boppam di wax naan kullu amali ibni aadama lahu nee na doomu aadama lu mu liggéey rek ma sant ko ko pour moom la illa siyaam bu dee koor nag quatre-vingt pour cent maa ko moom li mu ci am bëriwul parce que laa allakum tattaquuna te taqwa bi yàlla ko moo tax mu ne ko lu dul koor fa innahu koor la ca gën a bëri lii man yàllaa ko moom te wa ana ajzi bihi am naa ngor gu toll ni ku ma defal ma fay ko ku ma defal ma fay ko ndax li ko waral innamaa yatruku taama maa ko bindee noo xamante ne mbàkkam bi rek moo ko yitteel mooy lekk wa sharaabu li ko yitteel mooy naan li ko yitteel mooy la cay jóge te loolu yëpp mu bàyyi ko min aj li te man yàlla maa ko ko tere nit nu mu buggee lekk bu xëyee la muy njëkkal laajte ci këram mooy feesal biiram tey jii ni xale boo gis mu jooy la ca gën a bari mu ne nàmpal ko lañ lay wax xale bu fi joy ci kër dañ lay wax naan nampal ko mom lañ lay njëkk wax proposé la ne ndax do ko nampal mba xifu kon nit biiram moo ko njëkk a sonal xale bobu nonu muy joyé xelam la andatu waye mag dana joy ngir xiif li sonal mag yëpp li sonal nit mooy biiram bu démé bay waja tëdd bi jéxo ñëpp la muy mujjé def moy nit moy reer moy lek besu kon nit bu xeyé lek lay njëkk yittélo ay tëdd lekk lay mujjee yitteel yàlla nag nee na man ma tere ko mu bàyyi loolu ngir man comme bàyyi na ko ngir man nag man yàlla maa koy fayalal sama bopp wa ana ajzi bihi maa ko koy fayalal sama bopp du ma yónni malaayika du ma yónni ku ma jege maag moom ñooy toog ma yëkkati sama enveloppe fay ko te fayin nga nag fayinu gor la ndax kullu xasanatin bi ashri amsaliha li ma am du jeex ci samay magasin yërmande njëggal mbaax nee na benn bu mu def ma defal ko ko fukk te sax bu ma kenee kontaan sax danaa ko fulandi ilaa sab'e mi'ati di'fi ba juróom-ñaari téeméer man na def benn ma fayee ko ko juróom-ñaari téeméer ci ay tiyaab ak ay yiw kon def lay won ni koor occasion la pour daje di yàlla ndax fa ana ajzi bi man yàlla maa koy feeral sama bopp moo tax ci beneen riwaaya bu abu hurayrata jëlee ci yonente bi mu ne asiyaamu koor gii yàllaay wax de nee na junnatun def leen di fekk ay min ghadabi sama mer bu naree wàcc ci yow koor bu ñëwee bu ma la fekkee nga woor nee na du ma la buggal léegoo léeg nga mere nit waaxu jëm ci kawam am ci loo ko fekk sa mer ba jeex tàkk mu mel ni dañ laa sotti ndoxu galaas yàlla nee na bu ma la meree di waaj a wàccee sama mbugal ci yow ñëw fekk la nga woor jeex na sama mer mënatul wàcc ci yow junnatu wala mu ne junnatu ay mina seytaani kiiraay la sa digganteeg seytaane du la mën a wér lu wér surtout ci wér bi fokkati alañu bu wéeru koor yëgsee rek ñu mel ni ay ay ay seytaane yu dem nëbbatu ci waaye bu wéeru koor génnee nga gisaat leen ci caaxaan wala nga ne asiyaamu junnatun min nafsika mooy kiiraay bi jaar sa diggante sa bakkan bi la nar a sant ko firee baax na yàlla ne na fa in kaana yawma sawmu ahadikum kenn ci yéen bu wooree ni ki bésu tey jii fexeel nag falaa yarfas kaddu bu ñaaw bu mu jóge ci yow wala yasxab coow sax coow yenn coow yi daw am na yow bu rek tàng dara lu nit wax rek ñu xëpp ci kaan jabar ju waxe ñu sotti ci lu nit wax rek naqari dara rek noonu la ñuy subhanallah baaxul Lego léeg mu doon jigéen itam luñ ko wax benn rek tontu ba ñagas jàmm guñ ko rek mu ca yonte bi ne la fexeel moo wooree bul génnee ay jikko bul am ay jikko façon jikko yooyu noonu moytu ko nee na fa in saabahu ahad kenn sax bu ñëwee saaga ko aw qaatalahu wala attaqué ko pour histoire fal yaqul inni saaimun na ko tontu lu leer ne ko man damaa woor walladi nafsu muhammadun bi yadihi nee na waat naa ko ci yàlla yonte baay wax gannaaw ba mu nettalee waxu yàlla mu ne la xaluufu fami saa'imi ki woor xetu gémmiñam ndax léegoo-léeg mu xaw a am xet nee na atyabu indallahi nee na moo gën a nee xetu parfum ca yàlla te li am solo nag mooy ca yàlla kon pour wol na ne koor gi occasion la pour mën a dajeeg borom bi tabaraka wa taala kon boo buggee dajeeg yàlla forcer sa bopp góorgóorlu ba woor waxuñu nga xiifal sa bopp ndax yonent bi nee na bari na ku lekkul suba ba ngoon wóorul dafa xiif kon xiif yàlla waxul boobu koor la wax ku wóor nee na am nga okaat pour daje ak yàlla yàlla ñu daje ak yàlla rabbana yaxfir lana dunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana وانصرنا على القوم الكافرين وقل ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم صل على محمد وتكونوا شهداء أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عدد خلقه ورنا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء أوكي نت دفع آجو دكواي dëkkuwaay surtout bu yaatu te yaañu nit ku nekk rab yi sax dañu soxla dëkkuwaay kon nit dafa aajoo am kër goo xamante ne lépp lu mu soxla moom ci biiram koor gii nag occasion la bu yowmal qiyaamati jotee boo dëkkee boo dëkkee yowmal qiyaamati nga man faa fekk sa kër koor gii mën na laa may foofu kër fii ci àdduna bés booy xalaat am projet am say plan ni da ngay tabax kër da ngay defaale bilan ñaata million la am na kër goo xamante ne boo amee 3 millions mu taxaw am kër goo xamante ne il faut 30 millions mu door a taxaw am xamante ne 300 millions mu na kër yu jar sax milliards waaye kër gu la gën a cher rek gën laa baax. كير بولا غنا شير جن لا بري نوفلاي نينا يوم القيامة نبو بوغي دك نك ام سا كير بو خامتاني كير بو يانج لا كير بو خامتاني لپا نجا كور جي اوكازيون لا دو علال مولا كوي جوخ واي لا لا كوي جوخ موي كور كور بوكو نتي علي بن ابي طالب عليه السلام نيكون كو يونت بي يارال بوبام مو نانغول كو تروب بي يونت بي دا فا دون واخ نان نه ku bugg a gis dëgg dëgg jullit nee na xoolee ci Ali ibn Abi Talib al mu'min nee na waa jooju segg noonu ku bugg a gis jullit dëgg dëgg na xool waa ji nga moo segg parce que boobu mu doon defar dàll yonente bi dàll yonente jël dàll ba di koy defar yonente mu ngi toog ñoom Abu Bakr ñoom Seydina Omar ak yeneen sahaba ne ku bugg a gis na xool waa ji nga xamante ne moo segg di defar dàll bi subhanallah kon lu mu wax ci yonente bi rek war nañ ko mën a jàpp Seydina Ali leen jële naa ko ci làmmiñ ak yonente bi mu ne inna fil jannati nee na ca aljanna am na fa xurafan yenn façon building ak ay pale yoo xamante ne tura zuhuruha min butuniha boo toll ci biti di seen la ca biir wa butunuha min zuhuriha boo tolloo ci biir di seen la ca biti mooy këru veer yi xam nañ ne ci luxe la bokk mooy am kër goo xamante ne ay verre la bari na boo demee ci building yu bari ay verre la ay poto la ñuy def rek la ca des ay lan lay doon ay verre kër yooyu ñoo gën a cher yonente bi sallallahu ne ca aljanna am na fa kër yoo xamante ne noonu la ñu ba yonente ba waxee loolu mu am benn waaju taxaw village waa la ci dëkk ba dëkk àll yi la dëkk dal di wax ne yaa rasulallah sallallahu alayhi ndax dëkk yooyu doo koy faral di gis ci dëkk àll yi mooy lépp vert faral di gis mooy ci dëkk yu mag yi te boo demee ci dëkk yu mag yi dafa am zone yoo xamante ne foofu lay am yenn quartier yi lay doon mooy quartier yi nga am mooy quartier yu cher yi dafa am borom alal fu ñuy dëkk comme moom mi kaw kaw la nag nga xamantene ne dund bu mel non ak ko sori fi ci aduna mune ko ya rasulullah liman kër gu rafete nonu yanje nonu kan moy kiko mana am qala yonente bi sala sallam tontu ko ne ko xam nga kiko am kiko mana am liman man ataabal kalaama koo buy wax kaddu yu rafet kaddu yu seddal xol mooy jóge ci moom jigéen ñi dañ ci bàyyi xel yenn tontu yi duy faral di neex wa ataama mu am séddoo ko ko ak lu mu am rek ko mbokk yi génne ci sa poos joxe ne na dana tax nga mën am jëkkër yooyu waaye nag wa adama siya ne na saxoo itam ko waaw wéeru koor bu yegsee du utal ay lay yoo xamante ne wóor na ko ci yàlla ne loolu du lay dafa feebar ak lii ak lii lu nekk mu tudd kan mooy am ca kër yooyu koo xamante ne saxoo na weeru koor ba mu commencé bi ba muy jeex mu defee ko na ko ko yàlla sante tey it wa bi layl bu guddi jotee muy julli lillaahi te yàlla tax surtout ci weeru koor bi surtout ci fan yi nga xam ne mooy fan yu mujj jëlee nañ ko ci yenente bi soxnaa bi wax ko ne fukki fan yu bu yegsi woon yonent bi dafay gën a farlu bu wéeru koor yegsee bu jubalee mu farlu bu wéeru koor duggee mu yokkaat farloo bu ñu demee ba fukki fan yu mujj yi mu renforcer farlu ko be saxaaba yi nee na sax wala soxnaa mi nee nañu sax wa shaddal mizar dafay takk tubéyam waxin la mooy dafay laxasaayu mooy du amati sa jotu soxnaam dafay farlu rek nekk ci jaamu yàlla moom la ñuy tuddee intikaaf nga xamante ne rek jàng alquran suba ak ngoon jàng alquran suba ak ngoon tudd yàlla suba ak ngoon tudd yàlla suba ak ngoon kon moo tax mu ne la ñii ñooy ñi nga xam bu yombal qiyaamati jotee am nañu occasion pour mën a am ca kër yooyu bu defee ci àdduna dañuy wax ne kër gi ki ko moom imma ci réew mi fii Sénégal ministre sànga moo ko moom te du yoon parce que ministre warul lekk borom alal boo demee ci ñi nga xamante ne réew yu normal dañ lay wax naan kii commerçant la wala kii borom societé la wala kii homme d'affaires la ñoo ñee am këralug fii ci réew yu normal waaye boo ñëwee Sénégal nag ministre lay doon doomu ministre wala yu mel noonu te ñooñu waruñu amal parce que moomuñu alal ji alal ji dinañ ñoo ko moom askan ngee ko moom waaye comme suñu waxin la rek dañu wax naan kër bu rafet gii xanaa ministre a ko moom wala directeur sàngam moo ko moom ci société yoo xamante ne askan bi ñoo ko bokk parce que dañuy dunde ci kaw askan bi nag waaye daal li mu ci doon mooy kër yu rafet yooyu fii ci àdduna ñi koy am mooy borom doole borom alal yi yonent bi nee na ña koy am yowmal qiyaamati nag bokk na ci ñuy woor weer bii nii di koy rafetal ñu tëjee ko ci benn xadis bu am solo ndax nit dafa aajowoo ci sàng boppam doomu aadama boo xëyee da nga soxla sàng balaa ngay tëdd soxla nga sàng boo demee ñëw soxla nga sang léegoo-léeg nit yaramam bu tilime aajowu la sang kon ay bakkaaram itam aajowu na di koy jéggal weeru koor bii occasion bu rëy la pour far say bakkaar ba léegi abu hurayrata di koy nettali ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne asalawaatul xams juróomi julli yi tisibaar takkusaan timis gee fajar wal jumaatu ila juma ajjuma ba ajjuma ajjuma ba ajjuma waxuñu nga julli ajjuma ji ajjuma jee di ñëw nga tebal ko danger bu rëy la julli farata la ajjuma farata la yàlla nee na xaafidu ala salawaat wa salaatil wusta surtout ajjuma mu am ñoo xamante ne dañ koy sàggane foog ne bu ma neexee la ajjuma nekkul bu ma neexee tisibaar nekkul bu ma neexee farata la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku ko saxoo ajjuma ji nga julli ko beneen ajjuma ba nga fexe ba julli ko ma daanu weeru koor ilaa ramadaan ba beneen weeru koor weeru koor nekkul bu ma neexee waaye farata ci yow nga oor weeru koor bii beneen weeru koor ñëw nga ut ay pexe ba bañ koo woor kooku bokk ci waaye nga fexe ba woor weer bi beneen weer beneen weer delsiwaat ci beneen at ba fekk la ngay dund nga fexe ba woor ko xoolal rasulullah du doon faral di ñaan gudd fan mbaa xam na nag moom mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam a am a a def jaamu waaye rasulullah yàlla garanti na jéggal naa la te fii ngay dëkk sama wet moo tax moom du doon ñaan gudd fan waaye bu wéeru koor jubaloon nag dina doon ñaan yàlla gudd fan allahumma ballighna ramadan yooyu yàlla maa lay ñaan ñetti weer ma dund ko ba yëngi ci ramadan pour woon na ne ramadan lu am solo la ci jullit yonent bi nag ne boo wooree weeru koor bii fexe beneen weeru koor nga woor ko bu kafiraatu maa baynahum nee na lu mu fa fekk ci bakkaar far na boo wooree weeru koor beneen weeru koor nga woor ko bakkaar la fa nekk yëpp jeex na ñu ne ko yow yàlla loolu gudd na di kuy dee fexe ba beneen ajjuma nga julli ko lu mu fa fekk ci bakkaar fexe ba beneen ajjuma nga julli ko lu mu fekk ci bakkaar fomp ko ñu ko yàlla loolu ba léegi gudd na di ndax nit mën na dee ci diggante bi mu ne kon tisibaar ku ko julli fexe julli takkusaan lu mu fa fekk ci bakkaar far ko kooku nag ku sàggat bi amuloo ko nag yaa ko def sa ko moo tax occasion la ci ñun weer bii yegg si nii ñu fexe balaay dem suñuy bakkaar yi ñu fokk ba mu set dugg ci wanag ndox am na saabu am na air am na am nga say loxo nga génnaat gën a tilim kenn gën ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون باطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير